wajcal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida anta alladi allamta luqmaan alxikam waliyahabil mustafa xayra shiyam mbokki jullit ñuy seetaan fu ngeen mën a nekk ci àddina bi ginnaaw ñu sante suñu borom tabaraka wa taala julli ci yonent bu tedd bi sayduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal alxalifatul am cheikh muhammadul muntaqa xalifatu cheikhil xadim yàlla ko fi yàlla bàyyi bàyyi fi mboolem kilifa diine yépp waaye di gërëm waa daara di nuyu waa daara di ñaanal waa daara yàlla na leen yàlla sàmm te taxawu leen te dimbali leen itam mbokk yi émission bi ñu leen am bi ñu bi ñu leen amal alxamis bi jiitu ci weer wi tey nag muy fukkeelu numéro ak benn ñu ciy ànd ak suñu mbokkum daara di borom xam-xam di gëstukat ngeen xam ko muy Serigne Makhtar Kébé moom Cheikh Salif Mbacké ci mu leen koy defal waaye di gërëm itam mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi suivre émission bi di sant ñi nga xam ne ñoo koy taxaw ki ci jiitu alaaji Fàllu sekk ak sëriñ daam Touré bëgg mburu fàttewuñu itam suñu mbokkum daara suñu soppe suñu wëllëre sëriñ Mbàkke Sourang ci émission bu am solo bi muy am ak yéen itam ci même chaîne bi muy yaru ak yere waaye di nuyu itam suñu man suñu technicien sëriñ Moustapha Sarr ci liggéey bu am solo bi muy def kon di nuyu mbooleem fu employé c 3 nekk itam ci biir réew mi ak ci bitim réew ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi nag li ngeen ko xam ne li ngeen ko xamee rek waxtaan wi li ko tax a jóg mooy boole alxuraan yi nga xam ne dafa ne ci biir alxuraan te bokkuñu fu ñu nekk nuñ koy indee ba takk ko ci barab ba kenn ku ci nekk loo ca bëgg a fàttaliku ca boole yooyu nga mun ko fàttaliku loolu moo ju tax a jóg émission bi kon sëriñ Maxtaar laataa ñuy dugg ci waxtaan wi niñ ko daa defee dañ lay bàyyi nga nuyoo ñu ñuy seetaan salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu Cheikh Omar Sylla maa ngi lay nuyu bu baax di la siyaare di nuyu sëriñ Mbàkke Sourang mi ñu yeggalee léegi ci yaru ak yare ni nga ko waxee di nuyu sëñ Moustapha Sarr suñ technicien bu yaru bii waaye di nuyu waa c 3 tàmbalee ko ca ka ca bopp ba alaaji sëriñ Seck sëriñ Fallou sekk sunu xarit sëñ Dame Touré ak mboolem personnel bi fu ñu mën a nekk ci réew mi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara waaye di nuyu waa daara daara nag ñu bari ca lañ bokk ka ca jiitu mooy kay jàngale ka ca tege mooy ka fa nangoo yóbbu doomam ka ca tege waar mooy ka fa nangoo toog jàng kook ñeenteel ka mooy ka leen bëgg te di leen dimbale mm-hmm. kon ñëpp kenn ku nekk ñu ngi lay nuyu di la ziyaare mm-hmm. daara wati nag mbokki daara yi nga xam ne dañoo itteewoo lool émission bi safoo ko mm-hmm. te ñu mën a nekk ndeysaan mënuñoo teew ba mën a jotal seeni kàddu waaye nun ñi nekk fii nag ñi ngi jotal suñuy nuyoo ca ñoom ñëpp bàyyiwuñ kenn mm-hmm. bisimilah jërëjëf Serigne Makhtar ci nuyoo bu am solo boobu ñu ngi nuyu Aline Fall di suñu soppee di soppee émission bi itam dara du ko ci raw mm-hmm. ak mbooleem ñi nga xam ne rek ay borom yi xam-xam lañ ak ñu ne ci daara di jàng mm-hmm. Serigne Makhtar suñu laaj bu njëkk tey ci wàllu boole mooy Mafa Ndogaan baatu Mafa Ndogaan daa am boole wu ci ñëw wala lu ko boole boole waaw kay sëñ Omar mafaa ndogaan muy mafaa gi mhm. day dog day am alif mhm. la ca tege door caa tege bu ajee nag mhm. daa dogut moom mooy lu ñu aj lu ñu dog ak lu ñu aj ñu ne mafaa ndogaan njeego njeego mooy juróom benn bi ma faa zatin gallaay bi ma faa zatihim zumar mafaatixul xaybi lanaam mafaatixahoo yaar la nuur ak xasas mhm. mafazan ca naba i bu ci nekk day dog waaye du du jokkaraw macha allah jërëjëf jërëjëf kon boole bi ñëw ci mafa ndogaan mi ngi noonu ngeen jàpp ko di wax rek ne da tàmbalee woon baqara war a jëm ak yéen ba naas yi incha allah mboolem lu ci dikk ak ci boole rek mhm. sëriñ maxtaar dana ci dikk ak yéen mhm. suñu ñaareelu laaj sëriñ maxtaar mooy yazkuruuna laañ baatu laañ moom avant yazkuruuna lañ la moom laañ mooy deel ju tooy deel ju tooy ndax dafa am muy mboccoor ki mënta prononcé yaskuruuna rek lay wax ñu ne yadkuruuna laañ muy del ju tooy la ak yashkuruuna yi siin su tooy ñu teqale ko daal ne yadkuruuna yi laañ naayo ñeent la yadkuruuna allaha yaar la galaay ak jigéen jigéen mooy nisaa yi wa anaamun laa yadkuruuna lanaam wa ida dukkiru la yadkuruuna baam mooy saafaat mm-hmm. yooyu mooy yad yi nga xam ne laañ la mm-hmm. bu ko moytee rek yosh mboccoor la mm-hmm. jërëjëf sëriñ Maxtaar ci boole bu am solo boobu jëm ci yadkuruuna laañ te baatu laañ leeral nga ne mooy del gu tooy jërëjëf sëriñ Maxtaar ñetteelu ñaareelu laaj ñetteelu laaj bi mooy u i de dañ ko boole boole woon ci xarafu arab yi alifu nag baaw na xeet yooyu kon am na boole bu ñëw ci u i waaw ñëw ci ban la tomba koy maas a i tomba koy maas a a deesu ko laal u i u yi lay doon bu fekkee ci warsu bi la ñu ne boo defee u bu ca i tegee tomb ngay def a bu ca i tegee tomb ngay def comme a ilaahun ma dañ ko jàngee ay ilaahun mhm. moo tax ñu ne u i tomba koy maas a tomba koy maas a a deesu ko laal fa iza jaa liif googu doo ko laal allah macha allah ñeenteelu laaj bi mooy yazza taz yazza day ndende yazza day ndende tazza day ndende yazza deel gi ak kaaf ga dañ leen di maase mm, sadda leen tadda ak kaaf ga dañ leen di maase sadda leen yatadda ak tatadda kaaf ga képp la ñuy maas moom la ñuy sadda mhm. waaye kenn du saddalee ñu ne yadda day ndende mhm. tadda day ndende mhm. yatadda bañ ndende tatadda bañ ndende boo dee yataddak doo laal kaaf ki naan doo laal del ji mhm. yeta dak mhm. ca kaaf ga ngay sàdd waaye bu ne yet zakkaruuna mhm. nag day ndende da ngay sàddal deel gi sàdd kaaf gi ñu ne yet za day ndende mooy dañuy sàdd ñaari yëpp ta za ni ki ta zakkaruuna day ndende boo duggee ci yeta sa mën ne yeta za bañ ndende yeta sa du ndende ndax daal ji kenn du ko sàdd kaaf ga képp lañu la ñu ne yeta za bañ ndende tata za bañ dende ñu ne nag ba des tazakkaru l araaf man tazakkara faandaak bañ dende yaar la képp tazakkaru hmm. tazakkaru fa ida hum mubsiruuna tazakkaru hmm. du ndende hmm. man dakara ca faandaak muy footar du ndende te tasa kon dane tasa day ndende ba mu def tazakkaru ñun tazakkaru l man tazakkara faandaak tasa lañ génnee leen ci tasa yi ndende mhm. buri loolu tasa yëpp ay ndende ba mu des ñaar yooyu ba mu des ñaar yooyu moo tax ñu ne yata day ndende tasa day ndende yata mhm. sa mhm. bañ ndende te tasa bañ ndende tasakkaroo laaraaf man tasakkara faandaak bañ ndende yaar jërëjëf macha allah jërëjëf sëriñ Maxtaar ci leeral yu am solo yooyu jëm ci yadda day ndende leeral nga yi ndende ak yi dul ndende yan ñi maa sadd ak yu ñu maa sadd yëpp leeral nga ko macha allah jërëjëf juróomeelu laaj bi mi ngi jëm ci jelle wi ngeen gelle bi ces ngeen mooy la mooy ak xaalonk xaalonk rek mooy gele bu wiccee as ngeen nag mooy da caa yem xaalonk bu dara dog jókkuwut ñu ne gelle wi ces ngeen njeego njeego muy juróom benn maanan sax laan gelle la muy xaalonk gu wëcc la fan salaxa laaraaf gelle la fa idan salaxa baraan fa yan saxu laaxoo nga xajji nas laxoo nga jaal muy yaasin nastan sexu ca jaasiyati yooyu mooy xay yi nga xam ne gelle la te day wécc sëñ Maxtaar laaj bi wala juróom bi mi ngi ci su i yóbbu bañ su i su i la laam mhm. su ma su i lu laxsaab mhm. su i lat bi ay dan bin ca takk wéer jërëjëf sëriñ Maxtaar suñu beneen laaj mi ngi jëm ci xayra tongu xayra tongu moom lu mu. xayra lonk mooy tongu. xayra lonk. xayra ngañ gi mooy xëyin. xayra ngañ gi daa bari lool ci alxuraan. xayra madinina. xayra baytin. xayra tongu naayo ñeent. fa ku la i. fa ku la i. fa inna xayraa laan. kuntum xayra gallaay laa xayraa nga jigéen in xayraa nga xasas geneen xayra googu si rek def ko xëyin moom lañ dënk ci fa kula i fa kula mhm. ci xayra dong boobu xam ne lañ tënkee fa kula i xar ngañ ji ak raan xar ngañ ji ak raa njeego xar xar ngañ ak raa nga xar ngañ ak raan waaw xar xar ak raan la xar ngañ yi ak raa. xar bu ànd ak ngañ yi. ak raa loxo yaa ngi koy bindee ak ngañ yi. ak uh-huh. raa jërëjëf. ngañ yi mooy xëy. Mm-hmm. raa mm-hmm. nga def ko xar yeetal xam baatu xar yeetal xar la. Mm-hmm. mais xaaful. na. dëgg la ñu ne xar ngañ jag raa ñeego xar fatan laa. wala xar xar xar xar xar bi yeega xasas. xar jërëjëf sëriñ Maxtaar macha allah ci leeral yu am solo yooyu jëm ci wàllu boole di wax rek ne ngeen gën a continuer abonné ci chaîne bi ndax lii dafa raar trop nit mokkal na alxuraan am xam-xam bañ di ko tudd fu ne ci àddina te lii ñuy wax amaana lu bees lay doon ci moom waaye nag li nga ci jàngee rek mooy suñu mag ñi yàlla leen yàlla fay ndax lii madda mustaqilla la maanaam mm. lu lu particulier la woon ci seen seen liggéey ci alxuraanu karim mm. nit ñàkk koo mën taxul mën a bañ alxuraan waaye daa bokk ci li koy complété mm-hmm. daa bokk ci li koy li koy aar ba mm-hmm. alxuraan ànd ak culture bi mu àndal mm-hmm. ak li ci nekk yëpp ci wàllu ci wàllu ci wàllu xam-xam sëriñ Maxtaar lay ñaanal yàlla yàlla barkeel la Euh, xam-xam bi am na solo trop ñi ñaa ngi ci jëriñu bu baax a baax itam mm-hmm. rawatina ñi nekk ci daara émission bi ñoom ñoo ko gën a moom ñi nekk ci daara mm-hmm. di ñaanal bu baax koo xam ne yàlla da ko cee moyoon mm-hmm. muy borom xam-xam Serigne Cheikh Tidiane Seck bu ca ne ma ku déggaan boole yi muy wax rek sa xol day sedd ñu bari bu ñu lay déglu itam seen xel dem ci moom daana wax ne la waaye gisuma ku ma ci waxtaanal gis ma mën ma ci waxtaanal kon nag ñu ngi lay sant bu baax yàlla bëril ñu mel ni yow ndax njëriñ la ci alxuraanu karim sëriñ Maxtaar looloy waxtaan wi nga xam ne amaloon nañ leen ko muy seen fukkeelu numéro ak benn ci émission boole yi nga xam ne ñu ngi leen koy amal di leen jox dig daje ci fukkeelu numéro ak ñaar bi nga xam ne mooy waaj a ñëw di nuyu C3S kilifa gi alaaji sëriñ Seck sëriñ daam ture sëriñ fàllu Seck ak suñu technicien sëriñ Moustapha Sarr fàttewuñu suñu mbokkum daara sëriñ Mbacke Sourang moom Cheikh Salif Mbacke mhm. borom Taysirul Asir wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu rahmaani rahim nuun wal qalami wa ma yas